kiw sel yàlla dimbale kiw sel ngir compagnie la bu nga xam ne liggéewul pour ut xaalis pour boppam rek kiw sel dafa liggéeyal pour réew mi ngir ñoom lépp li nga xam ne am nañ ko ci seen lu leen yàlla jox seen ci compagnie bi suñu suñu ci seen koom-koom dañ koy bo bokk ak waa bi te gis nañ programme yu bari du lii rek pour na jox ndogu loolu tuuti la xam ne Qcell def na ko ci lu ñoo def seen ci Gambie bi fi am na programme bu nga xam ne bu am bu am fayda la programme bu rëy la bu nga xam ne Qcell mu ngi koo def loolu mooy li nga xam ne lu gën a am doole lu gën a li nga xam ne sax borom xel yi kontaan nañ ci loolu te ñu ngi ñu ngi leen di ñaanal mooy ne dañuy di ngeen di di ngeen di dimbale xale yi nga xam ne dina jox scholarship ñi nga xam ne ñu ngi jóge ci ci Gambie bi fii te soo déggee réew mooy xam ak wér yaram loolu mooy loolu mooy loolu mooy réew. kon ku dimbalee réew mi ci ci ci xam-xam dimbale xale yi ñi nga xam ne ñoo jànga di leen jox scholarship di leen te tànnuñ ni diw ak diw mooy Gambia lépp fu mun a nekk ci biir réew mi fokk yam ci biir réew mi fii waa dëkk réew mi fii yaa ngi jànga xamuñ sa xamuñ ne soose nga xamuñ ne wolof nga xamuñ ne soo pol nga dañ nekk Gambia la ñoo dimbale kon ci ko loolu ñu ngi leen di gërëm ñu ngi leen di ñaanal yàlla du ñu leen mus a fàtte abadan ñu ngi ñaax ñi nga xam ne ñu ngi oote ñi nga xam ñu yeneen compagnie nga xam dañu mel comme yenn ñu ñu def comme kiusel na moo union def jom rek jom ak fula fayda daal moo koy def jom ak fula fayda ma dee wante gi ma kenn gisul dina am fan yoo xam ne ko tëbal di manopalo jéem a jàpp julli waay waay eh, waay waay kaay kaay kaay kaay yow lii laa doon war xoolal li may def. boo doon war nag bii suma bos la waaye yow tamit damaa xalaat te béy bu kat lan moo ma manqué ci weeru koor bi nekk sa tala la xam nga ni li waruma koo jënd. ma ne lu biig si guddi yaa nga doon wax ne fa nga bëgg a jëndi eh, laay ne. waaw loolu weeru bu passé la. dimbali ma rek déedéet kiwsel yombalal nañ la ko. Ah. gis nga kiwsel fañ indi lu ñoo wax ramadan promotion. waaw si biir weeri koor gii ñaari bés bu ay njëkk képp ku jënd sim card di kiwsel ñu yor la benn satala nga jan Persib kan ñu jox satala kiw sel weli am sa sim am sa satala kiw sel weli dooma ko waa ñaari bismillah kiw sel si Banjul ndeng sel ñëw fi parce que couleur bi ngeen amee euh, dëkk bi xam nañ ko te du set la ñun Banjul ñu kontaan nañ suñu jokkoo ak suñu relationship ak QCell compagnie bi ñu ngi leen a ñaanal guddeeg bëccëg si tuuri euh, islam QCell yal na compagnie bi dem si kaw ko fi ko Mr Dia ko fa seen yal ko yàlla defal jaama ak mbooleem ñuy liggéeyal eh, Mohamed Dia yàlla defal leen jaama ñun de suñu waxee xëy na ñu wax ne dañ caalit waaye ñu ngi leen a ñaanal compagnie bi yal na dem kanam a kanam Qcell mbe jeyla mbe tentula dandulate on Qcell ni e eh, ɗo kuwo folojam pour que duwaño e sunkaro itol ya tombon ye sate o tombon yena awato tombon ya kañandi sunkaro fe e eh, kontanta baake allah naala biriŋal kibaramo ko albina ɗon um contanta aɗum mune o saabu wala mo kafuñoya betote aliye meyita yita sahde o moolla an ɗum fana wongani hakkilon o wala ɓe jan allah karola oto nte kumo siyandi la mba folali e ko on um kontanta bake mbe duwalali e sima bala ani jata kendiya kompino ñing man sattalla men hada mbaɗi on ma koye laati mba dani la face compagnie compagnie ñin samba ñaato enen bisima cuusen ɓe ganduɗa ko yimɓe amen min gowde maɓɓe eɓe tinni e amen hammad dia gonɗo yessojo kam ha e liggotoɓe mumɓe foof ha garɗo ɗo si allah jaaɓi min duwantoɓe kulle maɓɓe ɗe moƴƴat rek saabu koɓe sukki ko goto fof no andi kala sukkuɗo ɗum rek kulle ma moƴƴat saabu ko affaire diine ɓe sukki e jumaji he e jakkaji he nden noon allah waɗanaɓe jaam te allah firtaɓe allah firtoɓe ya allah yarama pokatatil tan ni luut ne ne si sim kato sangue ah. isi diamo isi ta ko de jom rek jom ak fayda daal moo koy def jom ak fula fayda ma dee woon te ma kenn gisul dina am fan yoo xam ne dinaa ko tëbal di ah, ah. ma noppalu jéem Madam, all you have to do is to send us a text on the following numbers. AfriCell on 2020 200, QCell 3030 300, Comium 6060 600 or on the Gamcell line on 999 0909. Your questions answered this Ramadan on GRTS. kaay leen ma diggal leen ndax li ma gis biir Mori Bolong Fani Cosenta ba tax ma di leen ko wax la ma fa gis yoo mu fa dem rek ba gis bagage yi nga xam ne moom lañ indi bagage yoo xam ne ni muy bagage yi nekk rawatina toogu yoo gis toogu boo si gis nga foog ne toogu bi dax muy toogu leda yoo xam ne ni am na yenn yoo xam ne ni soo sonnee rek da nga ñëw rek puus mu mel ni yaa ngi sa piliyaan te yëpp rek mu nekk toogu yoo xam ne toogu leda indil nañ leen armoot yoo xam ne ni armoot yu rafet te taaru ñu ne amuñ foofu amal nañ leen lal yoo xam ne ni pour boo amee doom bu góor mbite doom bu jigéen ñu ne lal yooyu nga fa ñu ne nag emuñ foofu boo demee ci seen Mori Bolong building material shop bi ñu ne nag amal nañ leen fa taal yoo xam ne muy karo néeg rawatina karo waañ rawatina karo wanen ñu ngi wax ne bagage boo jënd foofu noonu ñoo la koo ebal sa moto yóbbul la ko ba sa biir kër ñu ne loolu neex na de waaye nag moo tax ma ne leen ikkatil tey sa téléphone nga jokkoo ñi nga xam ne nii ñooy Mori Bolong Furniture Center mbite nga jokkoo ki nga xam ne nii mooy borom Mori Bolong jaaraama waa Mori Bolong Furniture Center If you have any questions that you want answered during the holy month of Ramadan, all you have to do is to send us a text on the following numbers. AfriCell on 2020 200, QCell 3030 300, Comium 60 600 or on the Gamcell line on 999 0909. Your questions answered this Ramadan on GRTS. طيبة يا طيبة يا نبات